baax di ziar délégation bi nga xamante ne si ñoo fi ñëwoon tey di waa zone 6 ak tête de liste Benno Bokk Yaakaar au niveau départemental Serigne Fallou Mbacké ibnu Serigne Alaaji Bara ibnu Cheikh Mamadou Fall ibnu Cheikhul Khadim seet si woon tey soxna Momi Mbacké moom Serigne Modou Mbacké moom Serigne Abdourahmane moom borom Daaru kii mu seet si nag muy sama rakk ñu bokk ndey bokk waajur waaye di sama sang di sama sëriñ di sama lépp korot bi ko sëñ bi jàppale bés bi dafa dikk waxtaan ci ak man dama nag damay jël kàddu gépp tegaat ko ci sa loxo ma ne ko fekk na ma am ñetti programme Mbàkke waaye lépp loo ma woo danaa ko bàyyi te dikk ca muy nit koo xam ne nag am nañ lu ñuy seede ci moom ci digganteem ak son excellence président Macky Sall ndax moom daa dëkk Daaru Manaan di sëtu borom Daaru waaye président Macky Sall yàlla da koo boole ak bëgg ci ab xol ci liggéeyam ak moom mu bëgg ko lool ndax defe naa ne du c'est la première mu di ko wooteel fii ndax yàgg na koo wooteel ci kër waajuram yi mu ànd ko magam ju baax ji di soxna Xari Mbàkke di taaw Serigne Modou Mbacke di sama waajur di sama lépp lu mu nekk mu fekk ko ca ànd kook ay magam ànd kook ay rakam ànd kook ay ndeyam ànd kook ay papaam it nag nekk ci président Macky sàll am ndam ba mu fi nekkee 2012 ba léegi sëñ Galas soxna moom it yóbbante na ma ci ne ma sonn na ci parti bi lool te nag du xàddi du bàyyi ndax ak bëgg ko ci fekk waaye bu sañoon son excellence président Macky Sall dana ko recevoir ni mu recevoir ay ndawam wax ak moom ndax nag sàkku na ko te bëgg na ko ndax mi ngi def social fii ci Daaru Marnaan di jàppale nit ñi di leen taxaw ci li mel ci lépp tenqalul kenn lu waaye xew de ak xew lu mën a doon da nga fa gis soxna moomu fekk fa lu xam kon nag mi ngi sàkku ci son excellence président Macky Sall mu taxaw ko te jàppale ko ñun nag mën nañ ci doon dolli lu bari. ndax fii nga ñu fekk Mbàkke Bal bërëbu yaakaarukaay la bërëbu électoral ndax deuxième ville population Sénégal département de Mbacké électorat bi fi ëpp doole Daara Xudóos la Daaru Marnaan kon nag jaadu nañu dooleel te responsabilité ñi fi nekk président Macky Sall nag élection yii li tax ñëpp war a sukkandikuwaat gën a jóg dikk jàppale ju ko ñun de bu dee ndaw ñu mel na ñun nga xam ne ay opérateur économique lañ développement réew mi rek moo ñu ñor duñ fekk liste boo xam ne Serigne Gallas Kaltoum im ni Alaaji Baara moo ca nekk jiite ko ñu xam taxawaayam ci dëkk bi ci social xam taxawaayam ci dëkk bi ci développement fekk ca Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaynde Fatma im nu Serigne seex Gaynde Fatma fekk fa Cheikh Baara Gueye Daaru Naim opérateur économique fekk ca Mouhamad Cissé nekk jeune opérateur économique fekk ca Matar Diop mu nekk jeune opérateur économique nekk ku jàmbaare fekk fa soxna Roqaye Diouf Mbacke nekk femme de développement fekk ci Mariama Diallo ñuy contre liste boobu ndax defe naa ne bu leen doon xool list bi gën a riis ci département bi xool list bi nga xam ne ñin jàpp ne bu ñu demee national nationale danañu défendre intérêt Touba danañ défendre intérêt département de Mbacke mooy liste Benno Bokk Yaakaar Macky Sall nag élection yi ay élection la parce que dafa soxla majorité pour mën a yeggale yéenam ci réew mi réew mi ngi nekk nag képp kuy wut jàmm réew mi jëlal bulletin bés maro bi am bopp photo bi bu ndemee le 31 juillet nga wateel ko président Macky Sall maa jël engagement di ko liggéeyee depuis ndax mosuma respectable te te nit bu la dee liggéeyal da nga war a ràññee pour pour ñëpp xam ne ni la bëggee tamit nga firndeel ko loolu rek moo taxoon may pare des fois dañ may baaxoo ndax nit ñi bëri na te aw ma maanaam aw ma lu ma leen wii yëpp jàllee na ma ràññee jërëjëf. di leen jox kenn ku nekk ci si wàccuwaayam sëñ Galas Kaltoum tête de liste maa ngi lay nuyu di la ziar yow ak délégation bi nga àndal ñëpp da ngeen ñoo fekk ci zone bi muy zone 6 ñu nekk fi bari ay programme mun leen a bañ a mënuñoo ñëw ba fii te du jël kàddu ci turu zone 6 loolu moo tax ñu jël kàddu wante man biir kër gi fi laa dëkk lu fi waay def rek mën nga ko defal soxna moom sama doom la lu ko waay defal mën nga ko defal kon dañ lay leeral rek ni la ñun waa zone 6 bi ñu commencé sunu campagne dem nañu ko sëñ Mbacke Daba Sarr naam dem ngeen fa yéen ziar mais ñun en tant que zone 6 muy sunu kilifa fii dem nañ ziar ko ànd ak délégation bu mat bañ fa jóge dem nañ ko sëñ Koso Abdourahmane bañ fa jógee ñëw nañ ci kër gi fekk fii sëñ Xaadim ndax sëñ Modou ku ne xamoon na li mu représenté fii ci Daaru Marnaan kon kër gi ñu jiitu nañ leen fi dem nañ ci Baye Fall ga ziare commencé nañu suñu ay visite proximité xëy na am na loo xam ne xamu leen ko moo tax ñu leen di koy leeralal wante loolu rek laa amoon ci lu may wax ñoo ngi ci liggéey bi te li may wax rek mooy list dafa war a gagné obligatoirement dafa war a gagné cette fois-ci ndax li ko waral mooy buñ ko comparé ak yeneen list yi fi nekk naam yeneen liste yi am nañu mbàkke mbàkke yu fi nekk mais nag ñëpp yamuñu ndax bu ñëpp yamoon am ñu kenn seen cër. ultimatum dañ la def tête de liste ngay bokk ci waa kër sëñ Fallou sëñ Alaaji Baara am lu mu seq ak président Macky Sall bu toogee ci nguur gi ba léegi ah am na lu bëri ci joué te yow gis nañu élection yu njëkk yi nga toogaloon ñu foofu ñu nag dañ dul nangu keneen ku nekk ci beneen parti boo xam ne xam nañ sa jikko nga ñuy jiite dañu nekk assemblée nationale ndax liste bii kat bu ne sëñ Gaye Kaltom mi ngi fi sëñ Cheikh Abdou Lahad Gaynde ma mi ngi ci ñu ni Makhtar joom mi ngi ci ak sunu jigéen yu baax yooyu wax nañ ko léegi duma ci dellusiwaat kon dañ ci am yaakaar assemblée nag dafa am assemblée nationale dafa am mbàkke mbàkke yu leen fa représenté woon xuloo lañ fa nekkoon ak xeex sëñ Gaye Kaltom mii nekk na assemblée ba jógee fa kenn mosu koo dégg ci yooyu kon te yàlla juddu dëgg la naam juddu dëgg la ngeen baal ma juddu dëgg la mais jukko lu am importance la ci nit ñun ñooy tànn ñuy siéger assemblée nationale te ñu baax ñii ñoo fa war a toog mais soxla wuñu koy saaga soxla wuñu koy gàddu saagu jigéen soxla wuñu koy podaru xee soxla wuñu koy xeesal kon nag wax dëgg yàlla da ngeen wootee au 31 des euh, juillet liste bi mu jàll sëñ Gaston Kaltoum bi président wóolu ak ñi mu àndal siégé comme ça ñun ñu dëkk Daaru war Marnaan ñun ñi dëkk Daaru Marnaan te ay tawat tawat du heure bii bu faloo nañ toog ak moom wax tawat ñun waa Daaru Marnaan mu eggee ñu ko ñu saafara ko wasalaam jërëjëf yëkkati nuyoo bu tedd di ko teg ci sunu loxo way jur sëriñ Mbàkke Daba Sarr ak sëriñ Kolso mu fi Abdourahmane waaye ñëw ci kër gii di sunu kër way jur di ko teg ci loxo sëriñ Jiili di sëriñ Xaadim wuutu ko ci jataay bi di nuyu ñi ñu dalal ci zone 6 muy Mor di président zone 6 di coordinateur bi ak soxna Mariama Ndiaye di madame Mbacke di coordinatrice bi di nuyu suñu rakk ju baax ji di soxna muumi nga xam ne soxna su déterminé wu la ci jàpp ak jàppale son excellence président Macky Sall démb tey soog a ñëw lii da koy dolli ci firndeel ne moom ci jàppale président rekk la nekk nekkul ci leneen am màndarga bopp fas kon soxna si ñu ngi leen di sant bu baax ci turu coalition Benno Bokk Yaakaar mais ci turu képp koo xam ne yaa ngi ci liste bi ngay góor wala ngay ay jigéen di leen gërëm bu baax tey soññi jeunesse bi ñu gën a góorgóorlu ci massification parti bi mooy porte à porte yi ñu gën cee dëgëral suñu yitte li feek ajjuma incha allah campagne bi tëj soxna si ñoo ngi sàkku ngeen gën a ñaan suñu borom defal ñu ndam au soir du 31 juillet ci barke seen maam ci barke seen baay baax di la siyaare yaa sa mbokk tedd yi nga àndal moom njabootu sëriñ Touba di njabootu Cheikh Mountakha Mbacké Serigne xalif général des mourides ñu ngi leen nuyu baax góor ak jigéen ma ak di leen sant di leen gërëm ci jëf yi ñu romb ak yi ñu toll ak yi ñu jëm yëpp. Serigne Fallou Mbacké mii ñu dubbee ko Serigne Fallou Cheikh Mamadou Ba Lamine Bara Mbacké Fallou di waajuram. defal ma kii loo xamante bii ne dafa ko quartier bi mel na man la ko ci seen la kon loolu dara la man sampub Serigne Saliou la sampub Serigne ma Lamine Bara Mbacké Fall mii la sampub Serigne Mountakha Mbacké mii la ma bëgg nag comme yàlla dogal na bind naa kayitu juddu bind naa ay carte d'identité bam fukki bureau ak juróom ñaar yàlla dogal ñu jël bureau yi suñu bokki caaween yi suñu sang yu baax yi indi ko muy fukki ñaar fukki bureau ci quartier bi ñu war koo piloté loolu seen jëm moo tax ñu def ko kon na ngeen jàpp yéen ñëpp ci liggéey bi fexe ba bureau yi nga xam ne ñoom lañ fi indi sëñ Gana mii di sëñ sëñ Fallou Mbacke ñu jàppale ko ba mu gañe suñu bureau waaw nag la koy waral mooy ngeen delloo seen xel ca ginnaaw ca xam ne man de yéen ñëpp laa fi nekkal muy góor di jigéen di mag di ndaw loolu yéen yéen ñëpp mën koo seere ndax loolu euh, mbirum sëriñ bi la ndax moo sëñ bi doyloo ba dénk ma fii may xeex ci quartier bi ba def fi marché xeex ba def ci kër sëriñ ba Mbacké Fallou sa kanam def fi jumaa def fi marché créer ay poste santé créer ay bourse familiale créer ay ay ay ay euh, euh, daara moderne créer ay forage loolu sëñ bi dara la loolu nag loxob sëñ baa ngi ci loxob état ngi ci waaye lu ñu séddis lépp incha allah sans wàll dafa ñëw loolu xam ngeen ko moom. dëgg la kon nag sëriñ bi nuñ duñ mas a opposé wu état président mi yàlla moo ko fi teg yi ngeen di wax chef du village yi ñoo ko ma na wax. parce que kenn ku ci nekk lu jub sa sa quartier sa loxo lay jaar bu dee réunion ci commune bi laa bokk bu ñuy wax maa ngi too président li mu ci def ci yi ëpp na fukki tër juróom-ñett. li mu fi def ci poste santé fukki poste santé pakaseen bi def nañ fi sans bopp pare na incha allah sëñ Fallou maa ngi bëgg balaa campagne bi ubbi bala war tëj ubbi ko parce que loolu am solo ci réew. dëgg la def nañ fi daara moderne def nañ fi forage yokk nañ ndox mi yokk nañ courant bi indi bourse familiale lépp ñëw la xanaa lu ko yokk la ñuy wax. Serigne Mountakha li wax yëpp dégg nañ ko bàyyi naa la ak Serigne Touba dénk naa la ko man nag li war di leen gërëm di sant délégation yi ngeen àndal yëpp. Serigne Thierno ñu ngi lay sant bu baax ci taxawaay bi démb ak barki démb waaye rawatina engagement bi nga xamante ni jëlaat nga ko ci sunu kanam feddali ko ak nit ñi nga àndal loolu bettuñu ndax xam nañ ko ci yow ngir sa diggante ak sëriñ bi mais sunu diggante ak yow mais sa taxawaay ci askan wi kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm bu ñu la santee sant nañ nit ñi. bu ñu la gërëmee gërëm nañ leen en tout cas li wér te mooy danañ la gën a jàpp mais danañ la gën a jàppale incha allah jàppale si ay nit euh, ñu ngi soññi nit ñi ci li nga xamante ni moo ñu fi dajale mooy bàyyi xel bulletin bii képp koo xam ne bëgg ngaa sottal li ñu nekk wala am nga yéene ci liggéey bi ci dëkk bi weesu fi mu toll ba son excellence président Macky Sall àggale ko fi mu ko bëgg àggale ba suba fi yeneen àggale fexe ba le 31 juillet nga jël bulletin bii nga xam ne rawatina jigéen ñi jigéen a ko jiite liste nationale ngeen bàyyi ci seen xel woote ko ñu mën a am ndam incha allah liggéey gën a yokk asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu